waqa salaamaaleykum mbokk internet yi seetaan seen sit internet Ngoy TV ñu siyaar leen waat leen bu baax a baax ñoo leen waxoon ne émission dalal borom xam-xam yi tey dinañ dalal samante nii yàgg ngeen ko dégg ci émission yi ci appel yi wax dëgg fa yàlla ngeen doon laaj jëm ji tey nag ñu jàkkaarloog sëriñ Abdou Wahab Diop fas yéene waxtaan ak moom nag ci xam-xam lu yaatoo yaatoo yaatu mooy faral di wax ne euh, nit ki bu dee ci bu dee day caaxaan bu ko woo ndax lu mu xes a def rek mënu ko dindi yéena ko doon laajte sëñ Abdou Wahab Diop moom la ñu jàkkaarloo tey fas yéene waxtaan ak moom ci xam lu mel ni ki noob bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko ci moom ci wàllum kayit ñi nekk bitim réew tey dañuy waxtaan ak moom ci wàllum jaaro ak wàllum kattan néegum euh, sëy incha allahu rabi nañ ko waxtaan ak moom itam ci wàllum ndoxam siti ak kanaar lépp incha allahu rabi ñu fas yéene ko waxtaan ak sëriñ bi dañ koy bàyyi mu nuyoo rek ñu xuus ci waxtaan bi sëñ Abdou Wahab ñu ngi lay nuyu bu baax. ورحمة الله تعالى وبركاته ربي أنسني منسلا مباركا وأنت خير المنسلين نيو ngi leen nuyu Mhm. te di leen siyaara tey rafet lu baax sama jotaay ak yéen mhm. muy jotaay boo xam ni yàgg ngeen koo sàkk lool ngir ñëw waaye nag ñàkk jot ba tax na mun mënu ma na asiwaal waaye tey la ko yàlla dogal dogal mhm. ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp di mboolem fa man nekk rek ñoo ngi lay nuyu te di la siyaar gën ngaa rafet nuyu ak gën ngaa rafet siyaar bisimilah sëñ Moussa Wa jërëjëf sëñ Abdou Wahab Diop mën nañu xam sëñ Abdou Wahab fan la bokk sëñ Abdou Wahab de mi ngi bokk ci njabootu sëriñ Massamba Diop Samb nekk sët ci sëñ Massamba. dëgg la sëñ Massamba it. Mhm. ñi njëkk a jaayante sëñ Tuubaa ci la bokk. dëgg la ànd moom ba. Mhm. suñ Tuubaa defal ko li moom kon nag ñun. buñ mhm. buñ dee ñaan lii bu nekkee suñu mécc. waas na mën a ñaan. te dafa am xam-xam boo xam ni. yàlla defal nañu ko. bu buñ toogoon fan toog sax muy dox. teewul nag bu la yàlla mayab xam-xam nga war sa dimbali jaam ñi awet na jaam ñi xam fu nekk daan fay dem te mun ñoo gis benn résultat yow kon day na daf war kiif nga génn xam-xam bi la yàlla may nga baax jaam yi ñun foofu jërëjëf euh, sëñ Abdou Wahab ñu bari itam ñu ngi laajte xam bi ngay wax ci téléphone bi ndax siñ Abdou Wahab mos na génn senegal dem sàkku ji xam-xam bu mel ni ay ganaar wala ay yeneen dëkk ci seen euh, yeneen dëkk yi laaj nga laaj ba am solo sama génn nag xëy na taxu koo sor yooyu. taxu koo sor waaye bu la yàlla dimbalee. nga jamonteeg ay mag. Mhm. mag ñoo xam ne ñu man yor naa xam-xam yoo xam ne. Mhm. ko nangoo génne mukk. dëgg la te loolu it tërbayu nit. Mhm. ak lu jaral. ma lijjanti ko ba jor ko ci moom. loo tax ma yor ko. moo tax nga yor ndax bu dee génn moom. bari naa génn naa ci gox yu nekk daal moom di sàkku xam-xam. ba am ko. ñaare bàyyi lu si ëpp solo te am solo mooy. li ñu yor nii. nit yàlla leen tërbiyu ban jox ñu xam-xam ba mhm. waxee ñu si kàddu yoo xamee ni mhm. kin koy liggéeyal bis bu ñu woowee des nañ ko leeral lu wér bala ñu ko liggéeyal incha allah la waaw ñu woo dinañ ko wax lu wér balaa ñu ko liggéeyal si Abdou Wahab euh, seet wala listixaar la ñuy njëkk a waxtaane tey ndax nit kii bu la woowee balaa ngaa dugg ci ay itéem foog nga seetal ko foog nga listixaaral ko ñu doon laaj listixaar bi nan lay demee si Abdou Wahab laaj nga laaj ba am listixaar mhm. loolu mooy wax seet te dana wax ni njàqare nit ki njàqare nit ki. Mm-hmm. bu dee am néega mm-hmm. seet mooy bunt ma ko mën a jaare kon nag damay wax ni nit ki moom. Mm-hmm. ak ku man di doon. ak kàllank yoo man di euh, gaar. bala ñu defal il faut ñu la ba noppi. seet nag ñun man li may seeta mooy. doomu aadama fu mu di nekk. bis bu yàlla bu fata tenq loxoom. yónnee ma. ak turam. ak turu mhm. mooy diw bu jigéen mhm. ci kàttanu sunu boom mi maye mhm. danaa ko seetal ba mu jàpp man dama koo xam wala ku ko xam moo ma ko wax ma wax ko seet moom yàlla def na ma tawfeex joo xam ne du ma ko def nit mukk te gisuma ko gisuma ko moom. Mhm. gàllankoor yu mu mën di am liggéey bu mu mën di lépp lu la. waaw ah, yónnee ak turam ak turam moo di jigéen. Mhm. incha allah loolu am na solo ndax nit ki néeg la. li ci biir néeg mënoo ko xam te jaaroo ca buntu ba kon foo nga jaar ci buntu bi seetal ko ngir xam ay jàngaroom mais euh, keroog ñu doon waxtaan itam walum xat-xat doomu aadama ndax nit ki itam boo ko seetalee gis ay jafe-jafe ci moom nooy jaare ak moom. laaj nga laaj solo. nit ki xam dañ ko seetal ba gis ne am na jafe-jafe. Mm-hmm. am na gàllankoor yu nekk ca moom. Mm-hmm. ah bala ñu ko defal dara. Mm-hmm. il faut gàllankoor deñ ab ndab. bu taqee. Hmm. doo si mën waaye bala nga bala nga dara def dara. il faut nga ras moom hmm. wicc. nga ras la ngay def. dëgg la ki nga xam dafa amee gàllankoor. Hmm. ban seer ba gis ni kii am nee gàllankoor. bis bu yàlla dogalee ban jokkoo. insha allah rabbi laa wax. li ñu ko def bu ñu ko defee ba ñu jëfandikoo mm-hmm. sangal yi mi ngi ci biir da dafa xaw a sër ci biir loolu dëgg la waaw waaye bu fekkoon yàlla am naa taagi danaa ko mm-hmm. génne war leen war la ko mm-hmm. ci kàttan su moom may bis bu ñu ko joxee ba mu jëfandikoo ko mboolem lu mu fekk sama dana ko dana ko dindi insha la ñaare bàyyet damay wax ni nit ñi dana bari fas am na ñoo xam ne seen mbir takk la am ñoo xam sangu sangu am ñoo xam ne naan am ñoo xam ne diw am ñoom xalwatu waaye bu mos man doon daal il faut que ñu xool ba nopp rek xam lan mooy dindi ay gàllankooram. Hmm. xam lan mooy doxal ay ay mbiram. Hmm. nga doog man incha allah. incha allahu rabbi acca ba tey nit ñi dinañu ñëw ci wàllum sangu bi sëñ bi ñëwaat ci deuxième laaj bi rek balaa ñoo dem ci wàllum kattan bi sëñ bi nit ki nga xamante ne liggéey def ko jàpp. nit ki ñu liggéey liggéey jàpp ko mu dugg fu ne mënuñ ko saafara ndax bu ñëwee ci yow am nga ci solution. ki nga xam liggéey da koo jàpp. Hmm. ak liggéey bu mu mën di doon. yor naa xam-xam boo xam ne ci kàttan suñu ba muy maye. Mhm. bis bu nu déggoo. Mhm. déggoo laax de. Mhm. du jàgg nag moom day ñëw ndax loolu yombul ndax. dëgg la li liggéey moom lu nekk si nekk. waaye bis bu yàlla de man xool ko ba xam ne kii ab liggéey moo ko jàpp. tan jokkoo. ci kàttan suñu ba muy li ñu koy bu ko defee ndox mu tàng jër ba sangoo ko. ci kàttan su moom lu mu fekk mu toj moom. incha allah rabbi ñaaree bàyyet day day ñaar. Mhm. bu dee ki nga xam ne dafa am liggéey te liggéey bi nekk si yaram dañ koy toj. ki nga xam ne liggéey bi dafa nekk ci barab. Mhm. dañ koy joxañ mu leer nañ. mu dem dindi ko incha allah mu dem dindi ko waaw mhm. jërëjëf kon mu nga noonu numéro baa ngi noonu ci écran bi mën ngeen ko woo Serigne Abdou Wahab Diop. joko ak mom ci téléphone bobu inshallah rabbi serigne bi ñu ñew ci lo xamne nak ya nga ko waxtane Sénégal bok nga ci 5 personnes wala première personne bi nga xamne tay ya ci gëna ay muy walum katan. ndax mu ngi tasker yu bare bare bare jigen yaa ngi bëgg joy. waaw da ngay am sa borom kër di fanaan ak moom xam nga du la mëna satisfaire te do ko mëna wax waaw sëñ Abdou hab ñu bëggon nga waxtaan ak ñun ci walum katan laaj nga laaj bu am solo. muy mhm. kattan. Mhm. kattan li may far di wax rek. Mhm. ku yàlla dogal loolu gaar ko. yëkkati ku yàlla dogalee ci kattan sama mi maye. dinaa defal loo xam bis ma la joxee ba nga jëfandikoo ko. fii juróom-ñett fukki at. kattan doo ko ñàkkati mukk moom. day leer nag. juróom-ñett fukki at juróom-ñett kattan doo ko mukk dina <laughs> dina fekk ngay dégg maam nag dana fekk ngay dégg maam waaye xam-xam la boo xamee ni <laughs> man li ni ma ko gëstoo waaw te ni ma koy liggéey noonu laa yor noonu laa koy wax man dëgg la waaw ki nga xam moo ko jël ba jëfandikoo ko mhm. dana yëg ci boppam kattan xam ba allah la allah kon mu ngi noonu mais soxna yi itam buñ la déggee mën nañoo ñëw wuutal ko seeni borom kër soxna yi man ko wutal borom kër borom kër Eh, bu fekkee. Mhm. ku góor ki. Mhm. sër sentir ko. Mhm. ku jigéen mën na koo sentir. bu ko sentiree mën na ko wutal borom këram. jox ko mu jëfandikoo ko. waaye lu su man doon ku ko man di wut. ci ñoom. ci kàttanu su mbam mi maye bés bu ñu ko defaree ba mu jëfandikoo ko ba sangoo ko. fii juróom-ñett fukki at kàttan du ko ñàkk allah. macha allah nit ki day am kattan. Mm. mën a ànd ak soxnaam. Mm. doom jafe ko lool yaaram. Mm. Ah, waaw waaw boo xam ni ci suba rek laa si mujjee liggéeyal nit. Mhm. loolu moom yàlla dafa tawfeex. Mhm. ki nga xam ne dafa dafa yàgg lool te mën na fex ba am doom. Mhm. des koy seet ba noppi. rab mën na koo tëj. ngelaw mën na koo tëj. loolu ne mën na waaye li ko mën di gàllankoor moom. bis mu ko xoolee ba noppi. ba jox suñ li ñu ko jox. ñetti weer rek laa ko may ñetti weer. trois mois mu ngi mu ngi résultat yu mel nañ. incha allah ñaari bàyyi nag moom ku góor gi. Mhm. dafay sangoo saafara ku ji takk téere bi. Mhm. waaye ñetti weer rek. Mhm. du ko romb te gis te yëgul dara ci yàlla. macha allah muy la am solo loo xamante ni wax dëgg fa yàlla mënul ñàkk sëñ Abdou Wahab ñu ñëw nag ci li nga xamante nii yaa ngi koy wax wax nga ko ci émission appel yi luy ay yoon i yoon képp kuy caaxaan buum la woo muy wàllum noob bi. waaw du chaque jour ma koy far di wax. Mhm. xam-xam la boo xamee ni. Mhm. buñ la leeralee suñu Moussa ni koy liggéeyee. Mhm. wallaahi yombul. dëgg la moo taxit nag képp kuy caaxaan. dox dëgg yàlla bul ma woo. bul ma woo waaye nopp. ki nga xam dafa am boroom këram. jigéen gi. am borom këram. boroom këram jaaru fa mu war a jaar. ñaar baat ku góor ki. am soxnaam. soxnaam si jaaru fa mu war a jaar. ci kàttanu suñu borom mii may bés bu ñu ko noobalee ba noppi. dana ko bëgg bëgg goo xamee ne. du koy caaxaanu mukk. dëgg la ñaare bayet mhm. bu dee wàllu nopp moom. Mhm. ñetti fan. ñetti fan ci la yem. amul musik sax nga si suñ suñ daal nañ. waaye nag damay wax ne ku caaxaan ngir yàlla bul ma woo. li may def su ma xasee ma nopp mënutuma koo dindi. Mhm. waaw. mu ngi noonu kuy caaxaan bu ko woo ci téléphone am boobu bëggul kuy caaxaan sëriñ bi ñu ñëw itam ci euh, soxna yi nga xam ne. dañuy kané seeni borom kër dañ leen di bayyi ci kër gi dem moy yalla wala góor ñi nga xamné dañuy japp kané seeni soxna dañuy mooy yàlla loolu itam nan ngay def nan lañuy def ko bëgg bayyi bàyyi waa nga laj bam am ki nga xamné dafa am borom kër di moy yalla nga wax mhm. ba wala soxna si xamni dafa am euh, borom kër borom kër di moy yalla di mooy yàlla ñom de kum su mën don dal ci hmm liñ lay liggé buñ la ko liggéré ban jox la ba nopi ba nga tëdd ba xëy suba. saxe da nekkat feneen fu dul mooy yàlla. loolu nag moom kum nekk ci moom. daaw a dindi ndax it. adduna bi dafa ñàkk solo. te am na si yoo xam ne dara rey adduna da koo jërul. ndax. lu mu su man doon xalaatal ëllëg boo rajeek sa borom tax laa kon nag képp koo xam ne yaa ngi ci mooy yàlla. te bëgg caa génn. wala nga lépp loo xam ne yaa ngi ciy def te bëgg caa génn. la yàlla def te fa suñu jokkoo bu yàlla dogal ban jokk incha allah rabbi li def moo xasee def ba noppi. bo tëddee ba xey suba sa xel dana kar feneen bokkut ak foofu incha rabbi deug la jërëjëf yaram kon de ngeen ni ko Abdou Wahab Diop waxe amna solo ñu ñew nak ci walum jaaro bi nga xamne mama bi may wax ak yow amna sax ño xamne dañuy dekal talo borom jaaro bi borom jaaro bi mm. mais sa jaaro bi tam si Abdou Wahab mm. amna li ci lo ma ci wax de ay tiaxan du ko fi jele <laughs> lu wex tala ko fi jele de mm. resultat yi lañ bëgg xam lay nga laaj ba solo waaw jaaro mom mm-hmm. damay wax ni ah ñi yàlla may xam-xam jaar bari na. Mhm. waaye man de li ma wér te ma xam ko xam ko mooy. Mhm. sama jaar bis bu yàlla ba nga jox ba nga takk ko. Mhm. da nga ubbeeku. da yokk. da nga mucc. te képp ku la yéenee. Euh, maanaam loraange. safaan moom moo leen njëkk loru. allahu akbar. te ñaare li wér te xam ko xam ko mooy. képp koo xam ne jox naa la sama jaar nga takk ko. te gisoo ci benn yokkute. gisoo ci benn ubbeeku. ñu war delloo ma sama jaar mu jox la sa xaalis. jaar bi nag. lu leer nañ ñi moo ko fi jëlee. waaw incha allah lu leer nañ moo ko fi jëlee ñu bari itam ñu ngi doon laaj ndax sëriñ bi su fekkente ne am na ko xam ne dafa mënul déplacé wu te bëgg nga ñaanal ko ci biir këram ndax mën nga déplacé wu ñeel dafa defal ko foofu xalwa maanaam ma fekk ko. nga fekk ko ci biir këram. loolu lu mën a nekk la. lu mën a nekk la. waaye ci kaw ñu xool ko ba xam ni kii. ay mbiram mm-hmm. jar na déplacé wu. Mm-hmm. ndax it am na ñoo xam ni da nga koy xool seen mbir sax sarax rek day defal seen mbir. macha allah nga wóole ñu def ko. Mm-hmm. seen seen seen aaj yi faju. waaye wala ñu yónni la nga defa jox ko donc defalee ko seen aaj yi faju. seen aaj yi faju comme man doon ci carte mi maye man ba ñu maa déplacé wu dem. liggéey déedéet loolu xam-xam la yàlla may eh, wax dëgg yàlla teewul. déplacement warna ma nek ci man ma dem liggéey ko inshallah rabbi deug la côté bob mom ci carte suñu bopp miy maye mhm. ki nga xamni ne dafay amee gàllankoor liggéey bu nak ci mom man mhm. na ma déplacer dem liggéey ko inshallah allah bu soobee macha allah te buñ ko défé ci carte suñu bopp miy maye mhm. xolam dara sét inshallah jara jërëjëf xolam dina sét serigne Abdou Wahab atia ñu ñëw nak ci suñu mbokk modou modou yi son nañu bok ay kayit ñu am ay kayit bëgg a ñib si keroog nga ma magal bi jégé sina té ku bëgg magal sina ñëw amul lu may sikk sàkk. waaw kayit. waaw suñ Moussa. Mm-hmm. yàlla defal na ma tëfeex joo xam mm-hmm. ki ko mën a xam mooy ki ma woo. Mm-hmm. wax ma ni ma dafa ni ma day lijjanti kayit. mu të. waaw wala muy bu déposé. du mën a gis dara. dëgg la ci kàttan suñu bam mi maaye bis bu yàlla dogalee mu woo ma téléphone. ba ma liggéey li ma ko liggéey ma noppi. du am juróom-ñaari fan laa wax lu wér nañ. allahu akbar te gisul suñu lu wér nañ cay kayitam. dëgg la kayit moom. Mhm. màggal gii laa la xam ne am na ñu war a màggal ñoo xam ne maa liggéeyal si mu war a màggal. ba ñu si. am na si ñoo xam ne. Mhm. côté bu ne taxaw naa ci kattan na ñoo xam ne mhm. ñi ngi jàkkaaroo man xam-xam boo xam ni. képp koo xam ne defal naa la ko ci kattan su moom insha allah rabbi da ngay gis gis nga suñu Musaa ngomm lii. waaw kanaar bi. kanaar bi gisuma lu ko gën a gaaw. allahu akbar ci lijjanti ay kayit. waaw wala lijjanti dara ci nit. waaw wala nit yoro la bor. nga bëgg mu fay mhm. ci kàttan su moom mi maye. Mhm. bis boo waxee turam yoon. waaw ci kanaar bi mhm. ko dencee. boo ko noppee da def danga ko teg foo xam nag. bët du fa àgg. waaw noppee daal. làqal. waaw dem ba si suuf fi ngay denc foo xam ne dara du fa àgg. nga denc ko fa waaw. maanaam ñetti fan laax de. waaw ñetti fan. Mhm. du ko am te la ngay sàkk ci moom jotoo ci. jotoo ci ñaare baat. Mhm. bu dee dafa ëpp nag. Mhm. Euh, euh, bu fekkee yitt yi dafa ëpp ñetti fan. bii mooy kànnaar bu euh, bu ndaw bi. dafa bu mag ak bu ndaw. bu ndaw bii nii. ñetti fan. du ko am te lii. bu fekkee dafa yitt yi li ñu ci li ñu ciy wax ci yitt dafa ëpp ñett yoon nag. du normal du normal ñetti laa yitte daal ñett na na neex ñett. ñetti yitte rek nga ciy def ñett nga si def waaw. ub waaw ci kàttan suma mi boo ko ubbee dem denc neel mm-hmm. tekk diglu ma la wax dëgg la caaxaan du ko fi jëlee nag lu leer nañ ni moo ko fi jëlee lu leer nañ wala nit yor la bor mm-hmm. nga bëgg mu fay la mm-hmm. wala ngay lijjanti dara ci nit mu jafe lool na yàlla def tawfa ban jokko insha allah insha allahu rabbi dëgg la mu ngi noonu caaxaan du ko fi jële kon sëriñ bi mu ngi noonu sëriñ bi kayit yi nga toog nii yooyu ci lan lay dox yaram laaj nga laaj ba Wow. solo muy kayit yi waaw day dox ci ubbeeku ubbeeku day dox ci bayre mm-hmm. day doxit ci ki nga xam ni daf bëgg fu mu toll mm-hmm. di mos yoolu da ciy dox da ciy dox da ciy dox ci kàttanu suñu boobu muy may ki nga xam ni dafa ami bëgg bëgg ubbeeku rek mucc am am am am alal mm-hmm. na ko yàlla dafa tawféex ñu jox ko ba mu jëfandikoo ko rek su ko jëfandikoo dana sant yàlla lool ci mbirum alal insha allah rabbi mooy yii nii yëpp ñu liggéeyee ba noppi am yoo xam it am na borom dafa war a dem waaw mooy yi si biir noonu mhm. incha allah rabbi waaye lépp lu ñu si liggéey moom du doy moom dëgg la lu ñu si liggéey doy dem incha allah macha allah mm. ñu ñëw itam ci wàllum fos yi suñu Abdou Wahab fos yi laaj nga laaj ba am solo waaw fas gi sax dama bëgg sax ah. di ko faral di génne dëgg la fas la koo xame ni mhm. ki nga xame ni mhm. dafa bëgg ku ko booleeg diggam ak boroom këram muy nopp waaw da ci dox ki nga xam dafa bëgg ko boolee diggam. bés naa ko du dara. mu ngi dox waaw ma xool waaw mu ngi wax waaw. ki nga xam dafa bëgg koo boole diggam ak boroom këram. Mm-hmm. ci kattan su may may bés bu la joxee fas gi ba nga fas ko ba takk ko. Mm-hmm. maanaam moom moom jim boppam. Mm-hmm. du maanaam jàmm mukk te gisu la. laa ilaaha illallaah. te lépp amul loo koy wax mu la koy bañal. dëgg la xelam. fu mu toll ci yow ci yow lay nekk. dëgg la. naar ba du la bañal dara rey nag moom. amul lo koy wax mom mo koy gaan dedet deug la ma sha allah amna solo lu am solo la. bu dee fas gini waw ni muru mu ñu nag mo ñoko hmm ñoo mm-hmm. nit ku ñuul. nit ku ñuul ku xom hmm ku mm-hmm. bis bu yalla dogalee ba nga jox ba nga tak hmm ci mo sa ne yalla dafa waaye ba nga tak ko rek. ma sha allah deug dëgg dëgg la kenn los mën lor. waw muy nit ku ñuul. muy mm-hmm. xom muy ku wex kenn mu la defal dara. deug la. Bam mu jàpp la. macha allah loolu am na solo dégg naa itam garabu ndoxam siti bi ak hémorroïde bi itam mu ngi fi. waaw loolu de yàlla may na ci xam-xam. waaw hémorroïde ak ndoxam siti comme si man doo nga xam yooyu moo la gaar. Mhm. bis bu yàlla doogee ba ban jokkoo mhm. insha allah rabbi la alhamdulillah su la joxe ba nga jëfandikoo ko mhm. moom moom danga nga tàggoo ndoxam si ba faw moom mhm. émérite eh, tàgg tan tàgg moom ba faw insha allah rabbi loolu yàlla xam-xam la ba ñu fi yàlla ma mi ngi fi teg insha allah macha allah am na solo sëñ bi balaa ngaa tàggatoo am na beneen laaj boo xam ne yóbbante woon nañ ma ko muy eh, jigéen ñi nga xam ne dañuy faral di jabat bopp buy métti <laughs> waaw ndeysaan waaw loolu moom ki nga xam ne dafa jàmbat bopp buy metti ah ñun yoo xam bés bu yàlla dogalee ba mu jox ko ba mu tag ko. incha allah rabbi. bépp métti métti lu waraloon a bi métti. dana saafara incha allah. dina saafara téer la boo xam moom téer bopp lay doon incha allah rabbi. bés bu yàlla dogalee ba mu jox ba mu tag mhm. mhm. mhm. ko moom. lépp loo xam ni da koo jaaxal ci bopp buy métti. moo xam waxtu bu mu ko mën a métti. moo xam muy guddi moo xam bëccëg. takka sa téer a yow incha allah rabbi boo ko takkee mu tàggoo incha allah. allah. Eh, jërëjëf eh, sëriñ Abdou Wahab xanaa ñu bay la rek eh, fekkente ne am na leneen loo bëggoon gën a fesalaat rek ci. waaw émission bi. waaw maanaam dafa am benn boo xam ni. Mhm. du ñàkk nit ku nekk ak lay doxal say mbir xale waxtu daal moom. Mhm. lu gaaw la ci mbir. lu gaaw la ci mbir. nit ki nga xam ne dañoo jot téléphone. Mhm. ñu seet ay mbiram ba xam ne xalwatu moo ko ma doxal. bis bu yàlla dawal buñ ko dëggalee xalwatu. ba génn juróom-ñaari fan. te gisul boppam dara. dëgg la xalwat moom lu wér naa wax la lees wax. Hmm. du ma ko dugal nit mukk te gisul ak yokkute ci boppam. macha allah ñaara baat nit ki nga xam dafa bëgg samp sampu entreprise. samp wala mu bëgg lijjanti lu dëgër. Hmm. ndax léeg-léeg nag lijjanti loo xam ne ni ah. taxaan hmm. du ko du ko sottal de. dëgg la de bu yàlla doole ban jor ban dugal a xalut ba génn. sa aji yëpp dana faj ci boobu incha allah. macha allah soob yàlla jërëjëf yaaram macha allah loolu am na solo Serigne Abdou Wahab Diop mu ngi noonu yéen a ko daan laajte nag jëm ji chaque jour ngeen daan dégg appel bi muy woote di teg xam-xam tey nag jàkkaarloo ngeen ak jëm ji muy waxtaan ak yéen kon gars yi daw leen gaaw woote ci numéro téléphone boobu balaa moo delluwaat Touba. Ah, Serigne Abdou kon ñu bay la rek nga tàggatoo. waaw bokk internet yi ah puis looy wax waa Ngoy TV encore. waa Moussa. waaw. tabax ah, sama sama sama sit la ñaare bayit liggéey bi sal na mhm. mat na matale na mhm. wax dëgg yàlla it sawar naa lool gis nga boo ko sàkkoo day mooy sawar lool ngir génn la ko waral mooy mhm. sab liggéey moo sell te jaaru yoon ñi ma jotit ñi ma koy seedeel muy seedeel lu la nañ lu ma lu ma gis nag te ma xam ko nag te li liñ ma seedeel ci yow wa ma zahidna ila ma alimna man moom laa gis ci yow li ma seer ci yow moom ñoom moom la gis ci yow kon nag mhm. eh, liggéey bi nga nekk mhm. doonu ñaan suñu borom mhm. mu dëgër la ci lool te jàppale la ci te ma àgg foo bëgg ma àgg fa rek man fa àgg may waxanteet mbooleem nit ki jàkkaaroog man li waral jotaay bi dara loolu xam-xam boo xam ne yàlla may nañu ko. dëgg la ñu man ci doom taxaw doomu aadama fu mu mën di nekk. Mhm. ay aajam yëpp faju incha allah dara wóorul ko noonu loolu dimbali doomu aadama yi rek. doomu aadama yi suñu waxtaan dana sonn lool. Mhm. te fu nekk lañuy dugg. dëgg la am leen bëgg. dëgg lan li wax dëgg dëgg du leen ko wax. dañuy nit da lay seetal. Mhm. wuur laa ñaan sax wuur laa ñaan sax. génn la sarax boo xam daanaka day tëj say mbir. dëgg la kon nag nit ki. ngir yàlla rek. képp koo xam seetal nga te war te tey tey waroo koo ñaanal. nga bàyyi ko mu sablu wala nga bayiko wax ku leer nañ ni ko mënu ndax nit ki bëgg dara da tax wax ni def ko lo xam dara du ci am deug la waaw kon nak dal ñi sant ñep tey gërem ñep di sax di wax ni xam-xam bi ni yàlla dafa ki ko mëna xam moy kenn ma señ abdou wahab dama am yité nangam bëgg nga taxaw ma ci inshallah inshallah acca ngi nonu ku am xaw soxla rek jokolak lak mom numéro baa non ci écran bi ziar nañ waat ñep alaykum wa rahmatullah oui pour yow mi nga xam ne dangay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew Ngoy TV dangay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day leer nañ Ngoy TV daal c'est le meilleur bu pare nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala danga nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV le meilleur c'est donc abonné sur Ngoy TV ngir di am actualité ak information yu leer service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 wala 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV dal c'est le meilleur abonné vous di am avec actualité ak information yu leer Ngoy TV dal ay <laughs>